Sen'Eau ñu fas yéene waxtaanee seeni i jafe-jafe parce que gis ngeen fan yile euh, ñoom ñu ngi amal ay mouvement euh, d'humeur yu bare bare ci jafe-jafe yi nga xamante ni euh, liggéeykatu o yi ñu ngi koy jànkonteel rawatina sax li nga xamante ni rek SDE waroon na ko wàccee ak les travailleurs de o maanaam ñi nga xamante ni ñoo doon liggéey sénégalaise des eaux fi ñu toll nii di liggéey Sen'Eau jafe-jafe yooyu daañu ko waxtaanee ak jafe-jafe bi am ci ni ñu yoree mi file ba consommateurs yi mënuñ guñu mënaguñu am euh, satisfaction ci euh, service bu Sen'Eau euh, ñu fa yéene ko waxtaane ak kile di El Hadji Baba Ngom ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm man maa ngi leen di fay di ñaan yàlla rek tey daje bi yàlla na si yàlla def jàmm ba nit ñi ñu wax fi loo xam ne nit ñi mën nañ ko dégg mm. di gërëm seen seen auditeurs yëpp di leen sant di leen ñaanal yàlla ci écoute bi pour que mm. nit ñi vraiment mën a xam ràññee ba li nuy wax tamit ma mën a dugg seen bopp mm. yow tamit ma di la sant di sant sa technicien yi waaw ñu lay jaajëfal ci sa disponibilité est-ce que xam nga ni euh, consommateurs yi ñu ngi leen di dàkkantale seen eau sans waaw loolu day vraiment dégg nañ ko nit ñi di ko wax dégg waaw dégg na ko nit ñi di ko wax waaye mm. xam nga rek ne comme dama ñëw fii mm-hmm. te Sen'Eau andiwu ma fi ndax tamit benn corporation moom fi andi en tant que responsable syndical. Hmm. et en plus tamit euh, représent euh, candidat à la représentation au conseil d'administration de Sen'Eau. Hmm. loolu moom fi indi waaye nag li ñuy dégg tamit neexunu ne euh, Sen'Eau sans eau. Hmm. waaye nag ñun liggéeykat yi. ku nekk xam na ne lan doon def dañu tripler d'effort waaye nit ñi bu ñu amulee ndox yaakaar naa tamit loolu. du du si travailleurs yi waaye mën na am euh, pénurie la. waaye danañ la ci laaj de. ah waaw mais. yaa ngi dégagé yaa ngi gaawantu di di kii mais faaw ñu laaj la ci jafe-jafe yooyu. non euh, seeni jafe-jafe yéen liggéeykat yi. ak tamit jafe-jafe yi nga xamante ni consommateurs yi actuellement ñu ngi koy am. Mm. kuy liggéeyee kay seen o boo ko amee mu toog faaw nga laaj ko ci. waaw man kay daw ma amul question tabou parce que. Mm-hmm. kër gi. depuis SONES ba léegi deux ba léegi maa ngi fa activement kon nag amul question tabou waaye dafa am question structurelle yoo xamante ne bu man maa ko war a répondre waaye keneen moo ko war a répondre muy kan mu doon euh, la direction générale de o moom mhm. mi xam ne dañ ko jox pour que mu jox nit ñi ndox mu doy en permanence et à moindre prix te joxewu ko bañ koy wooyee sans eau tey jii comment se porte votre syndicat nga jiite euh, syndicat unique des eaux du Sénégal. ah bi bi ma ko jiitee. sa syndicat am na doole amul doole Baba Ngom. Ah, syndicat bi tey mooy la première puissance. Mm -hmm. euh, au niveau de Sen'Eau ndax tamit élection yi le 18 mars bi ñu fa demee mais ñun am na fenn syndicat bu mag bu ñu fa fekkoon naam. Mhm. syndicat boobu amoon na presque 76 délégués contre Euh, vingt six presque sur sur cent mais waaye ren bi ñu defee élection yi. Mhm. Euh, ñun remporté nañu ne ñun ren ji ñoo la première euh, le premier syndicat. Mhm. bi nekk au niveau de Sen'Eau. de Sen'Eau waaw. yéen a fa jiitu. ñun noo fa jiitu. sur le mhm. nombre de voix parce que kii topp kii ñu topp. rawal nañ ko cent tey jii faw ñu ñëw ci euh, élection de représentativité syndicale yi da ngeen koy waajal waajaloo leen ko euh, comment ça se passe exactement comme ça euh, askan wi xam importance su élection de représentativité syndicale. ah non du élection de représentativité syndicale parce que élection de représentativité syndicale. Mhm. loolu ñu ngi koy xayma. Mhm. si élection de délégué du personnel au niveau des secteurs de base. kon mais non fi euh, li ñuy def nii mooy élection pour le représentant des travailleurs au niveau du conseil d'administration bi xamante ne euh, xeex nañu ba am huit pour cent war a représenter travailleurs yi au conseil d'administration de Sen'Eau toogal fa travailleurs élection pour euh, la le représentant hmm. des travailleurs de Sen'Eau de Sen'Eau au niveau du conseil d'administration bu Sen'Eau bu Sen'Eau si biir structure bi ci boppam si biir structure d'habitude comment ça se ah d'habitude nan nan la doon demee xam nga euh, le pourcentage état bi moo def appel d'offre international mhm. bi mu defee appel d'offre international mu ne day renverser la tendance tendance bi bu jëkkoon euh, le premier repreneur mu doon euh, SDE mhm. mu ngi amoon cinquante et pour cent état bi am quarante cinq quarante neuf pour cent mhm. mais léegi bi ñu defee la deuxième réforme de l'hydraulique urbaine état bi ne kon nag erreur ba mu defoon ba joxoon buur di bummi un étranger loolu dafa koy dindi léegi moom mu jël mu am vingt quatre pour cent mm-hmm. les euh, les sénégalais privés mm-hmm. sénégalais am vingt pour cent les travailleurs am onze pour cent mm-hmm. mais si biir onze pour cent yooyu les travailleurs de Sen'Eau ñoo am huit pour cent les travailleurs euh, de Orange et de SONES ñu am 3 pour cent ñu ne le représentant des travailleurs au niveau du conseil d' administration mu ngi war a jóge Sen'Eau loolu nag bi mu amee ñun tamit ñu ne nañu waxtaan waxtaan suñu biir pour seet kan moo nu fa ay toogal. Mm. loolu depuis juróom-ñetti weer ñu ngi siy waxtaan suñu biir ku nekk xam na ne intersyndical bi ñoo àndoon de deux mille dix sept jusqu'à deux mille vingt. Mm-hmm. mais loolu yaakaar naa pour seet benn poste. xool si ñi àndoon di liggéey di ñafe pour liggéeykat yi ba ñu am huit pour cent dem fi grève def lépp yaakaar naa loolu waroon na yomb waaye nag bi ñu demee poser problème pendant huit mois. Mm-hmm. ñuy waxtaan suñu biir mënunoo juboo si ay kàddu. waa ku bu nu mënul jiboo si kat rek ñu ne kon nag loolu nanu dellu si travailleur yi jox ko travailleur yi yi si seen bopp ñoom ñu seet kan la ñu wóolu kan kan moo leen doy mu toogal leen foofu di leen saytul lii xamante ne ñoom moom la ñuy liggéey. di xool la ñuy def di xool lan la ñuy def. yow candidat nga. man candidat la kañ la élection yi. élection yi mu ngi am àllarba bii ñëw incha allahu rabbi le vingt sept janvier. de huit heures élection bi mu ngi commencé huit heures jeex seize heures. yow da bëgg ñu fal la yow. dama bëgg ñu fal moom. lu tax ak loo fa nar def. li tax euh, li tax ñu ma bëgg ñu fal moom. Mhm. ndax tamit tey li ñuy xëccoo tey dafa am genèse. Mhm. xam naa genèse bi dina gudd. waaye tamit il faut que tamit ñu wax nit ñi pour que la quintessence de la question nit ñi xam ko pour que ëllëg si bër ñu xamante ne foofu ku fa ne yaakaar naa war nga fa ne ku fa newul tamit nga xamante ne nit ñi bëgguñu la keneen lañ fa teg jeunesse bi nan la commencé c'était en première réforme deux mille euh, mille neuf cent quatre vingt mhm. mais yaakaar naa ñun dañu amoon cinq pour cent cinq pour cent yooyu bi ñu ko amee euh, finalement mujjuñu ko mujjuñu ko euh, capitaliser en mille mais amoon nañu cinquante euh, cinq pour cent parce que l' du Sénégal avait cinq pour cent ñeneen ñi am cinq pour cent comme sénégalais yi euh, ñun travailleurs yi ñu am cinq pour cent. cinq pour cent yooyu en 1996 euh, mujj ñu ko woon a capitaliser parce que il y avait un différend entre ñaari syndicats yi fi nekkoon ba ñu nekkoon nag nañ ko capi mënuñu ko woon capitaliser bi ñu ko mënulee capitaliser yàlla def. Euh, euh, man boobu secré euh, du woon secrétaire général du syndicat boobu man délégué du personnel rek laa woon mais en mille en mille neuf cent en mille deux mille neuf. Mhm. deux mille neuf Karim Wade bi ñu ko bindee lettre Karim c'est Karim Wade grâce à Karim Wade moom la ñu moo tax ñu récupérer sunu 5 pour cent cinq pour cent yi man bi ma ko bindee lettre Karim Wade tontu nu ne dina leen boole Omar Sarr ak ministère de finance pour que ñun ñu ñu delloowaat ñu ñu restituer sunu capital bi xamante ne waa SDE ñoo ko porté woon te waruñu ko woon. porté c'est en mille 2011 que ñoom ñu delloo ñu ko def ko suuf forme de fonds commun de placement mais yaakaar naa ñun bokk ñun suñu syndicat ak man Baba Ngom ñun ñu xeex loolu ba loolu am waaye nag ñu ne nag comme constitué nañu le CA ba pare moo doon euh, conseil d'administration bi yéen mënu leen fa nekk ñu ne waaw kon baax na mënuñu fa nekk waaye continuer nañ continuer di liggéey si deuxième réforme de l'hydraulique nag urbaine bi mu amaatee ñu ne nag impair ba amoon en 1996 nañ ko récupérer en en 2016 2016 la ñu lancé appel d'offre mais bi ñu amee yàlla def tamit ñu xeex xeex ba am 8 pour cent. Mm. bi ñu amee 8 pour cent ñu ne nag kon nag war na noo am benn représentant parce que représentation bi li ñu ko jox dañu signé un protocole d'accord avec l'État du Sénégal tant que euh, monsieur Mansour Faye moo fi nekk mu jox nu benn euh, ne war ngeen am kenn ku leen toogal foofu. Mm. yaakaar naa tamit état bi respecté na. engagement bi mu jëloon waaye nag daf na du dugg naka lañu koy élire te effectivement bu fekkee ne ay travailleurs dañu daje seet moom war na si mën a génne neutre si que nu mu tuddati direction général bu Sen'Eau tamit neutre si waaye ñu organiser des élections euh, transparentes pour que nit ñi ñu mën a seet kat moo leen doy. Hmm. loolu moo tax ñun. Hmm. bi ñu demee ba jubóo ñu si kàddu ñun syndicat yi fa nekkoon ñëpp juróomi syndicat lañu. Hmm. jubóo ñu si kàddu ñu ne kon nag. nañu seet kat moo leen doy ma ne man Baba Ngom. koo xamante ne moo nekk l'initiateur mm. li fi am lépp si wàllu réforme boobu jëm si nit ñi moom loo xam a ngi si biir waaye bii moom rek moom moo ko moo moo ko def ba nit ñi ñu delloo leen seen cinq pour cent léegi ñu am huit pour cent kon yaakaar naa yelloo na Baba mu war fa mën a toogal bu dee sax benn benn fan mu toogal fa saytul nit ñi ah li xamante ni ñàkkoon nañ ko pour que nit ñi mën a am seen teraanga Baba Ngom yaa ngi tagg sa bopp de. tagguma sama bopp de. waaw waaye nit nag bu defee. bu defee man Baba Ngom man ma toogal fa liggéeykat yi. waaw man Ba man Baba Ngom. waaw ma toogal fa liggéeykat yi. Mhm. liggéeykat yi lan ñu la doon ñafe pendant trente ans. ñoom xam nañ ne parce que fanweeri at ba léegi fanweeri at ak benn maa ngi si biir secteur de l'eau te ko xam nañu lan laa man lan laa tële ak lan laa xam. Mhm. kon nag te loolu yaakaar naa xam nañ ko mën nañ ko te mën nañu indil teraanga yi travailleurs hmm. yi. ku andil fonds commun de placement travailleurs yi. Hmm. andil leen capital mais yaakaar naa toog dans une instance boo xamante ne. Euh, décisions yi les les grandes orientations de l' entreprise foofu la ñu koy jële yaakaar naa boo fa toogalee di nga fa toogal travailleur voilà kon euh, leer na mais ñu laaj la euh, beneen question Baba Ngom lan moo gisoo ne fii maanaam lutte syndicale yi syndicalistes yi ni ñuy xeexee dafa dafa monotone ci secteur yëpp ah. Mhm. du si ndox mi éducation santé ainsi de suite dafa monotone est ce que jotul ngeen xool yeneen stratégie yu bees yoo xamante ne moom ngeen indi di xeex. ngir li ngeen di yóotu ngeen koy jot souvent parce que dañuy gis ni souvent seen bras de fer entre yéen ak état wu Sénégal da ngay gis ni souvent état wu Sénégal da leen di euh, souvent du leen faale da ngeen di xeex ba sonn rek delluwaat liggéey seen liggéey. waaw mais que est-ce que jotul ngeen xool yeneen yu bees. stratégie bi sitting ay marche ak yooyu yëpp ça ne marche plus même grève de la faim sax ça ne marche plus. waaw mais moo tax ma ne la. Euh, li ñu war a def. Mm-hmm. mooy il y a trop de syndicats. comme dans les les partis politiques loolu facteur bloquant la. Hmm. ndax tamit tey jii. bokk na si liy yàqal liggéeykat yi lii moo yàqal liggéeykat yi parce que liggéeykat yi bu fekkoon ne dans les corporations fi ñu nekk dañ fa amoon ñaaru wala grand maximum ñaari syndicat wala ñetti syndicat hmm. mais ñooñu ñu mën a parler le même langage waaye loolu moo tax état bi profité combien de syndicats il y a dans ce pays. Hmm. combien de centrales syndicales. bari na du jël plus de vingt deux centrales syndicales est est ce que nit ñi. matuñu un million de personne ñoo xam ne ñu ngi liggéey activement kon yaakaar na loolu si lii gën a yàq li ñu loolu la. Mhm. beneen bi tamit état bi tamit ak gouvernement yi ku nekk da ngay diviser pour régner am na syndicat yu bare yoo xamante ne état bi ñoo ko créé am na syndicat yu bare si kër yi yoo xamante ne l' employeur moo ko créé pour jéem a diviser nit ñi pour mën a am loolu. waaye nag. Mhm. dafa jot. Mhm. nit ñi àndandoo. don benn seet ay kuréel yu dëgër. Mhm. yoo xam ne mën nañoo def seen waa alax ak yelleef ndax tamit grève de la faim ak yooyu yëpp ñun ñu ngi ko fay def. grève de la faim marché tout parce que léegi da ngay xiifal ba sonn di xam ñu yóbbu la hôpital. grève de la faim état du bokk si revend si euh, naka la ñuy xeexe si syndicat loolu politiciens yi ñoo ko doon jël. Mm. waaye nit ñi dañu dem a dem a dem ba yaakaar ne lee les les responsables syndicaux jëlatuñu en charge ñoom ñu jël seen bopp en charge loolu rek moo ko indi waaye nag masul bokk sax si euh, centrale yi ñuy xeexe ay nu mu ti kii bi ni nga waxoon léegi. grève de la faim grève de la faim grève de la faim moom bokkul ci syndicat. waaw mais syndicat. Hmm. rapport de force est-ce que yéen est-ce que yéen jotul yéen ngeen di tax dem sage maanaam li tax ma wax la loolu ngeen indi stratégie bu bees indi lu bees. loo xam ne état tàmmul di ko gis ci yéen pour su ngeen yuuxoo ñu faj ñu saa saafara seeni jafe-jafe mais léegi da ngeen di yuuxoo yuuxu bay bëgg a dee def conférence de presse nekk ci tele yi rajo yi di wax def grève de la fin def sitting kenn du leen faale ngeen delluwaat seen bërëbu liggéeykaay. mais est-ce que jotul ngeen di dem di taxaw buntu palais. déedéet loolu loolu du ko feeñ. xam nga waaw wala da ngeen ragal buntu pale yéen. déedéet buntu pale du régler problème. xam nga seen Guy Marius rek moo ñemee buntu pale. waaw mais Guy Marius Sagna bu demee buntu pale ñu jël ko fu sànni ko fële après wala ñu jàpp ko dugal ko si kaso bi loolu. du régler problème loolu ngeen di ragal yéen. déedéet ñun ragaluñu loolu xam nga lan lan moo tax. waaw Euh, ñun du ñu def loolu parce que loolu bokkul si lutte bi yi xamante ne les classes ouvrières moom lañu war a lutter. Ah. la classe ouvrière lan la war a lutter mooy le rapport de force entre euh, le travailleur et et, xam nga lan lan moo ko mooy que nit ñëpp bokk àndandoo doon benn. waaye bu ñu àndulee doon benn ñaari nit isolé bu ñu demee fële mais nit ñi tamit dañ leen jàpp dugal leen ci kaso loolu du bokkul ci forme de lutte boo xam ne dem dem buntu palais déedéet bokkul ci forme mais loolu signal fort taxaw buntu palais njiitu réew mi la ñuy waxal déedéet boo boo taxawee buntu palais parce que buntu palais mënu loo fa yàgg amul quel soit le nombre boo fa mën a yóbbu mais mais mais mu nekk stratégie bu bees par exemple stratégie bu bees wala yéen nangeen ragal palais déedéet ragalunu euh, ragalunu ma wax la waaw ragalunu euh, palais waaw ragalunu nu euh, gendarme. waaw ragalu nu police ragalu nu dara. xam nga lan lan moo tax non yéen seen oo ni ngeen di xeexe yéen dafa yomb. déedéet yéen du ngeen si de la faim du ngeen def dara. da ngeen di taxaw ci buntu euh, kii bi fii. suñ wet gi fii Castor eh, si cité des eaux foofu rek ngeen di taxaw presse bi ñëw ngeen yuuxu delluwaat waaw mais moo tax boobu ba léegi amoo leen gain de cause déedéet tey suñu loxo ndox ndox amul ndox ñu ah, tey sunu loxo ndox amul ah, loolu danañ ci ñëw après waaw mais non loolu xam nañ ne mm. ñun bu ñu téye sunu loxo taxaw foofu loolu nag loroo leen état bi ñun ngeen lor consommateur yi. Ouais. que ñun ñu ngi fay suñuy facture ah. ku fayul ñu couper la yéen ngeen mer couper suñu ndox. waa ouais, mais tey yéen bu ngeen di. est-ce yéen di ngeen couper couper ndoxu pale. dama ne ndoxu pale. waaw est-ce ndoxu pale di ngeen ko couper. ma ne ndox yëpp laa wax ne ñun bu ñu meree. waa ndoxu pale loxaa ko fay yóbbu. waaw ndoxu faneen loxaa ko fay yóbbu ñun bu ñu meree. tey suñu mais mais Baba xam nga lu ma d'accord. ci stratégie boobu. waaw maanaam su ngeen meree. waaw au ngeen couper ndoxu askan wi. maanaam ñi nga xam dañoo sonn loof lott mhm. euh, ngeen couper ndox mais da ngeen di couper ndoxu palais. non non dama ne la yow. waa kan moo ne la maanaam gouvernement bi ngeen di couper seen ndox. ñu xam ni yéen kii ngeen. ma ne kan moo ne la gouvernement bi ministre yi suñ ubbee seen robinet duñ gis dara dama ne la ministre yi. waaw ak gouvernement bi ñun bu ñu demee grève kenn du am ndox mu doon ministre bi mu doon man mu doon yow mu doon keneen. non loolu nag laa contre. consommateur yi seen yoo nekku ci. mais consommateur nun du nu ay consommateur yow tey jii bu ngeen. amee maanaam askan wi seen yoo nekku ci. lan ah, moo ñun xeexu ak askan wi de. waaw xeexal xam nga nag kan la ñuy xeexal. waaw ñun sunu employeur bi xam ne moo tax ñu dem grève moom lañ doon xeexal wala état du Sénégal bi tax ñu dem grève. waaw waaye tey jii yéen day kumba. bu ngeen bu ngeen doon dem grève tey lan ngeen di utiliser. Hmm. vous utilisez vos moyens pour propre pour mën a dem grève da di bañ a jël seen rajo bi euh, di di di communiquer. Mhm. mais ku nekk nag moom li mu am. moom lay demee marché. non li nga wax d'accord naa ci mais xam nga fan laa gisee injustice. Mhm. maanaam askan wi ngeen di xañ ndox te ñoom seen yoo nekku ca parce que ñoom ñi ngi fay seeni facture ku fayul facture ñu coupé la mhm. su ngeen di def seen sitting yooyu mhm. lu ngeen di lancer appel état wu Sénégal n'est-ce mhm. wala direction bi waaw su ngeen meree ba ne ngeen ne da ngeen di coupé ndox mais état wu Sénégal maanaam gouvernement bi Macky Sall ak ay ministre am moom ngeen ñoom ngeen war a coupé seen ndox waaw mais moo tax ma ne la xam nga amul ndox ñooñu maanaam déet yéen kay xam ngeen xam ngeen fu nekk ak famille alimentaire ñooñu ngeen war a coupé waaye déedéet moo tax ma ne la ñun xamuñu Macky Sall xamuñu président de la République xamuñu xam nga nun lan lan ñor. ah xam ngeen ko kay parce que à chaque fois moom ngeen di lancer. déedéet moom la ñuy lancer c'est-à-dire bu ñu koy lancer en tant qu'autorité régulateur de l'État. boo xam ne moom ñun ñëpp moom la fal. waaye nag ñun bu ñuy couper. tey jiite ba léegi coupé coupé guñu bés bu ñu demee ba seen o boo leen ñu coupé nag déedéet seen o war a coupé wala travailleurs yi mer waaw bu boobaa di ñu xam ndax ñun coupé nañ wala déet gis nga grève bi fi ne amoon mhm. nit ñaa ngi wax lu nekk di accuser les travailleurs di wax lu ne mais nous n'avons pas coupé benn robinet parce que ñun dañu tey suñu bopp ndox mi xam nga ndox dafa tayal. Mm-hmm. ndox mi mu ngi jógee à quatre cent kilomètres de Dakar mais ndox mi boo ko puusul moom mais moom day tayal day dox ndànk rek dërëyank la. Mm-hmm. loolu moo tax ndox mi. di dox bi ngeen seen loxo ndox mi yéex a ndox mi yéex a ñenn ñi am point point haut yi. loolu ñoo xam ne day dem a dem ba dootu fu mën a yéeg. parce que loolu lépp ay pression. ak pousse lañ ko doon defee. waaye bés bu nu demee grève. bés bu nu demoon grève. mu wóor que ne Sénégal mm-hmm. bépp nit kenn doot fa am ndox parce que ñun xam nañu man nañu te xam nañu naka lañ. non mais pour waaye cible bi defal ndànk ma yegg la cible bi. waaw du travail du du du du du du hmm. on n'a pas on n'a jamais on a pensé au que au tra euh, que euh, consommateur yi ñun ay consommateur lañu. mais yow mag yow noo bokk noo bokk benn zone bu ñuy hmm. nekk man est-ce que dinaa coupé sama bopp bàyyi la yow ngay am ndox. mais loolu moo tax nag. Hmm. ñun couper wu ñu kenn. loolu nag te mais dama ne loolu su demee bay am. waaw nga ne waa euh, président Sall Mermoz la dëkk. waaw mais nañu couper secteur Mermoz. waaw mais président xam ne dañoo mer bu ñu am ndox. waaw mais président laa wax mais président moom si boppam. bu dëkkee même bu dëkkee Mermoz moom Mermoz dëkk fa moom rek. waaw ak yeneen i nit a fa nekk. waaye kon nag ñun du ñu ko seet na moom la ñu war a couper wala waruñu couper waaye dañu dul couper kenn si ñoom. Mm. parce que dañu ndox mi nag dañuy téye seen euh, loxo. da ngeen seen loxo daal ndox mi du dem bu baax am mooy seen stratégie. déedéet moo woon suñu stratégie waaye ba léegi demuñu si dem grève une grève totale bés bu nu demee grève total hmm. et c' est que ne. benn robinet du xeeli. benn robinet doo xel benn minute. parce que ah tamit pendant combien de temps parce que dinañ ñëw ci seen euh, comment dirais-je seen mouvement d'humeur bi. non yi gisaat nañ leen ngeen yëngu-yëngal def sitting euh, si seen buntu direction bi fii cité des eaux lu ko waral exactement. sunu mouvement parce que yéen a ngi menacé à chaque fois daañu maral sénégalais yi. déedéet non non non le mouvement d'humeur bi ñuy mu ñu mu ñu yëkkati. Mhm. du woon du pour seen o du pour maral euh, sénégalais. Mhm. boobu ñun dafa am. koo xam laa ba nga expliqué. waaw dafa mhm. am. waa SDE xam nga dañu nekkoon ak ñoom di sëye ak ñoom. pendant vingt trois ans. ñaar fukki at ak ñu nekk ak ñoom. Mhm. xam naa nit boog buy dem bu àndee ak yow ba bay dem vingt trois ans bi ñu defee appel d'offre euh, Suez jël ko par l'intermédiaire de Sen'Eau fi mu nekk nii mais ku nekk booy dem book au moins nga doon nga nga doon gentleman nga mhm. élégant mhm. li nga amee loon si ay travailleurs nga fay leen ko. nga delloo leen ko. mooy waaye ñoom bi ñu ko demee dañu dem. joxuñu travailleurs yi dara ba ñun dañu mujj mhm. dem di leen topp fa ñu nekk di leen laaj suñuy congé yi xamante ne mhm. ñoom dañ ñu ko am leen euh, ñu ñu ko ñu mhm. joxuñu une partie joxuñu le reste suñu fonds commun de placement fi mu nekk am na plus de trois milliards cinq cent millions yoo xam ne travailleurs yi ñoo ko moom ñu lax leen ñun restituer ko ñoom ñu téye ko ñu téye ko suñu capital boo xamante ne capital tout compte de SDE ñoo xamante ne ça avoisine presque plus de cent milliards loo xamante ne am nañ fi pour cent mais loolu lañu wax ne ñun ñu def assemblée général nen nañ ko dem jëli ñoom ñu jox ma euh, ndigal mhm. bi assemblée général bi jox ma ndigal ne ma dem leen loolu ngeen dem ngeen jëli ko mais bi ñu yàlla def bi ñu demee man bi mu bindee lettre bi jox ko le directeur général de la SDE mhm. mu doon en l'occurrence Simana Simana dafa jàpp nit ñi ne noonu nu ngi si antiquité nu ngi si euh, euh, colonial époque coloniale. Mm. mu bind na lettre ne wéy yéen ñëpp waxu leen loolu Baba Ngom ak ak corporation ñoo wax loolu. waaye mais ñun bu fekkee ne ñun euh, ndey kumba yow da nga ne lii man maa ko wax yi nga ma ne la lii waxuma ko kan moo nu mën a xaajale lu dul les travailleurs loolu moo tax. ñu def pétition. Mm. pétition yi et les gens ont répondu massivement 80 pour cent des travailleurs répondre nañ ci pétition wax ne lii Baba mu wax. wax moom la ñu bëgg moom la ñu bëgg mooy ñu dellu ñu restituer nu. Mhm. sunu fonds commun de placement. Mhm. restituer nu. Mhm. sunu capital. loolu moo tax nag nous profiton de set émission. pour lancer un un vibrant appel à l'État du Sénégal pour ñu arbitrer nu ñun ak waa SDE. E. parce que buñ ko deful ñun dañu assiéger les locaux de la SDE. loolu ñun ala d' accord nañ si te incha allahu rabbi après ces euh, élection bi de 27. Mhm. incha allahu rabbi. après élection bi 27. de 27 euh, bii janvier bii bu nu buñ ñu delloowul lu nu moom di ngeen dégg la neen si euh, nun ak waa. ngeen di ngeen assiégé. assiégé hmm. le siège de la SDE. ak lan. ñu yóbbu sunu lan ngeen fas yéenee def. exactement pour li ngeen bëgg ngeen am ko. mais xam nga loolu moom dañuy dans un premier temps dañ ne dañuy takk barrage rouge dem taxaw foofu xam nga bu ñu fa taxawee. Mhm. foofu circulation bi day euh, day day bloqué si VDN. Mhm. VDN bi ginnaaw euh, euh, boobu boo fi bu fi nit ñi taxawee fukki nit bu ñu fa taxawee moom li waxatuma laa tout la la Sen'Eau bu ñu taxawee foofu mais yaakaar naa foofu dara du am et bu boobaa loolu mooy premier bi pour que nit ñi xam ne ñii ak ñoom am nañ problème parce que nous sommes des pacifiques li ñuy laaj. depuis boobu ba léegi. waaw yàgg na de SDE kañ la fi joge waaw deux mille euh, trente et un décembre deux mille dix neuf. deux mais bu joge fa léegi mu nit bokk bu fekkee ne da ko yor alalam mu ne la man wóolootumal si denc waaye ngir yàlla waaye delloo ko alalam ñun loolu ñu rek la ñuy ñaan bu nu sañoon nag. vraiment duñu yegg foofu extrémité parce que extrémité sénégalais xamul loolu sénégalais li mu xam mooy masla tey jii nit da nga lay tooñ yow danga koy ameel bor sax yow nga ameel ma bor man ma di la neexal pour nga fay ma sa bor kon nun maslaa noo xam. kon daal fas yéene ngeen dem ba jeex ngir li ngeen bëgg ngeen am ko pour que ñu maral sénégalais yi ngeen maral sénégalais non non non maral sénégalais noonu duñu maral sénégalais parce que si nun si mbir sénégalais lañ parce que ñu eh, sénégalais déjà dañoo mar sangootuñu mar nañ sonn nañ ah, eh, gis nga ko sànq message bi ma la wan si si facebook bi ah xam naa ne bu ngeen si yokkee ak grève bi moom moom mooy eh, sénégalais yi faatu nañ exact exactement. déedéet moo tax parce que suñ toll nii moom. su fekkee liggéeykatu seen o yi dañoo mer. Uh-huh. ba tëye seeni loxo ba ndox mi taxaw mooy lootu sénégalais dee nañ. déedéet sénégalais il faut que ñu comparer ñaari chose mm-hmm. dafa am CNO ak SDE CNO defaguñu loo xamante ne daa tax na ñun ñu ñu demagum grève. Mm-hmm. léegi li ñuy wax. ah seen CNO lañ xam. waaw CNO la ñu xam. waaye yi ñuy jot seen o lañ cay bind. waaw. waaw mais moo tax ma ne la bu ma amee mouvement d'humeur mhm. envers la SDE ñenn ñi dañuy jàpp ne waa CNO effectivement et travailleurs CNO yu nekkoon SDE mhm. ñoom ñoo ko def ñoo am lu ñuy laaj ñoo waa SDE seen ancien employeur mhm. te ancien employeur bi yaakaar naa warul sax tëdd di nelaw na delloo na restituer li mu moom li mu moomul na ko delloo la mu moom na ko jëlal boppam. mais naka nga gisee kàddu njiitu réewu Sénégal ci ci euh, ci euh, comment dirais-je ci kiyam bu njëkk ci fin d'année bi mu ne moom biñ ko laajee si takk morceau bu xonq mu ne moom du gis morceau bu xonq yow en tant que syndicaliste naka nga gisee lool. mu ne comme ça maire ba futu am lu la naqari nga takk morceau bu xonq ainsi de suite mu ne moom gisul morceau bu xonq. waaw mais mais loolu lan nga ci mën a tontu en tant que syndicaliste. waaw dama dama yaakaar ne président bi dafa am dafa bëggoon. Mhm. moom si réñam. loolu mu bañ fi am. xam nga man dem naa Japon en deux mille quatorze. Mhm. xam nga japonais yi même même bu ñu meree ñoom ñëpp seen morceau bu xonq te terewul du ñu wàjje du ñu wàññi liggéey bi. Mhm. dañuy continuer pour wan na parce que. gën a gën a performant. gën a performant pour loolu day wan signe la pour que moom. ne nun am na nu la metti te kooku am la la metti wane loolu loolu c'est une manière pacifique. pour que nit ñi toog ak yow président bi naa am bi mu waxee loolu. waaw mën naa am si période Ablaye Wade la woon. waaw ñuy takk morceau yu xonq parce que morceau yu xonq mu ngi commencé si presque période Ablaye Wade. waaw waaw mais léegi moom dafa bëgg beneen forme de lutte boo xamante ne moom. si la bëgg mais waxu ko waxul eh. waxul morceau bu verte wala jaune. waaw xam nga nee na moom daal gisul xonq. xool leen leneen waaye xonk bi moom moom du ko gis. waaw mais xam nga stratégie. xam nga mm-hmm. en en stratégie moom mu ngi orienté nit ñi faneen. faneen xam ne war nañu war a xool. dafa taxawoon carrément ku am lu la metti voilà kiyal lu xonk ñu xam. mais kii waxul dana moom gisul morceau bu xonk mais proposé wu leneen. à la place waaw mais moom li nekk si bopp xalam nag. ah man manuma ko décortiquer waaye noonu en tant que syndicaliste. waaw en tant que syndicaliste. ok man en tant que euh, est-ce ma ne moom bu dawee responsabilité am ñun. Mhm. syndicaliste lan moo nu war mooy sunu entité mu gën a dëgër. ñu àndandoo doon benn bu ñu defee jonction def benn jonction ëllëg bu dara xewee bu ñu dalee si kaw état bi yaakaar naa dinañu am gain de waaye nag état bi ni mun a mm. fragiliser ni mu mm. fragiliser syndicats yi wala central yi mm. mais yaakaar naa loolu moo tax tiitul si lu bare waaye nag il faut que central yi les responsables euh, des centrales syndicales il faut que ñu xool ña ñetti central mais oh. fii fii ñi fi yor centrale syndicale yëpp nommé nañ leen conseil fële ca conseil économique social environnemental kan mooy xeexal liggéeykat yi waaw mais ñu loolu c'est-à-dire loolu kenn bañu ko waaye xam ah, nga kenn bañu ko am na ko bañ am na ñu ne àndul déedéet ànd na xam nga lan moo tax mu ànd. Mhm. parce que nit mënuloo ko nekkal fenn te xamuloo lu mu lu mu fa nekkee. parce que ñooñu dañu jiite ay travailleurs te conseil économique social environnemental ay travailleurs ñoo fa nekk boo xamulee pénurie lii xew ci dëkk bi. Mhm. mais tamit doo mën a. mais est-ce que dina la jox yenn euh, dina la nommer conseiller nga am yenn privilège yi xam nga am peut-être loo xam ni amoo ko woon nga mën a continuer xeex bi comme ni nga ko waroon xeexee. parce que ñun fii souvent dañu fiy dalal ay liggéeykat. Mhm. ay ay syndicalistes mais du ñu rafetlu euh, nomina seen nomination ci conseil économie sociale parce que jàpp nañ ne ku la abal bët fu ko neex ngay xool. état mënu la jox yenn privilèges yi ngay tourné waat di yuuxu état. mais ah. loolu nit ñi. xam nga euh, loolu si deret la. Mhm. xam nga am na ñoo xamante ne même boo leen joxulee dara. Euh, nañ ko mën a waxee ñoom duñu duñu xuloo duñu xeex waaye am na ñoo xamante ne man damay jël son exemple moo di gër walaay jël. moo di Guiro man mooy sama responsable. di Guiro xaw naa seeral léegi. déedéet ma ne mooy sama responsable. waaw te dara feesul feesul bëtëm. du conseil économique social environnemental moo fees bëtëm xam nga ku nekk euh, nu ma ne OIT organisation internationale du travail nekk fa membre. mais je ne pense pas que ne lii war na fees sa bët waaye nag comme dañu euh, la dañu constituer ne euh, nu mu tudd conseil économie social environnemental ay syndicat war nañ fa nekk loolu moo tax mu dem toogal fa travailleur di saytul travailleurs yi ndax ñii ñu ngi doxal li ñu war a doxal wala tamit doxaluñu li ñu war a doxal. yow jàpp nga ni la lool daal dara nekk si. non Ngom boo génnoon fii ñu woo la nommé la dangay ngay dem. non damay dem waaye tamit. da ngay dem waaye damay dem waaye. mais leer na boo demee Baba bi ma dalal fii. Mhm. suñ la nommé dans deux ans du nekk Baba Ngom boobu. dina xoolal dina raw Baba Ngom boobu parce que dama ne la. dama la kaddu gi mooy mooy mooy am différence. déedéet dama ne la dara déedéet ça dépend kaddu. ak ak maanaam ku dégg ku daan dégg Baba Ngom. avant ñu koy nommé ak après suñ ko nommé dangay ngay xam ne mu ngi seeral. waaye mais dinga nga xam ne. waaw di nga xam ne Baba Ngom ma woon changé wul parce que Baba Ngom fa mu dëkk ak ñi ko xam ak si dara jamu bokk mënul mënul changé. Hmm. te ñu mel noonu loolu moo fi bare nag. Hmm. xam nga ñenn ñi dinga nga changé kàddu Modou Guiro boo koy dégg day wax ndànk ak yooyu hmm. waaye lu mu la wax tey jàpp fa fa euh, jàpp ko lu mu la wax dëgg la si moom. te gis nga tey jii bu ne woon Macky Sall dinaa ñëw pale ñëpp euh, buñ ko jàppee. mais ñoom moo di gërëm gisatuñ leen ci xeex yi. non non non gisatuñ leen ci front bi. xam nga lan moo mais ñun bu nuy xeex. ay syndicalistes yoo xam doo leen gis ci front. déedéet ñun bu nuy day tagg moo di gërëm ñoom Cheikh Diop la gis ci front bi. non Sidi Sidi Ndiaye. moom non Sidi Ndiaye képp la ñuy gis. ci front bi xam nga lan dafa yor syndicat de base. te Mody Guiro yoratul syndicat de base il coordonne les activités de la centrale loolu foofu lañ kii cest comme man mii tey ma yor syndicat de base uute na ak mhm. koo xamante ne mu ngi nekk si kaw koo xam ne dafa day coordonner les actions des syndicats sunu organisation centrale mhm. il y a plus de cent cinq organisations syndicales moo di gërëm yoru fa benn syndicat mais day coordonner syndicat moo tax dematul front déedéet day dem front mhm. waaye dama ne day coordonner waaye euh, kii CDA bi nga jël mais moom dafa yor syndicat de base collectivité locale donc buy wax si collectivité locale boobu lay wax chaque fois nit ñi nag dañuy comparer xam nga CDA mën loo def euh, kii ñaari comparer ñaari CDA sànq benn boo ko déggee mu wax toujours da nga naan il est dans le front. Euh, hmm. ak loolu waaye yenn saa yi waxul pour centrale day wax pour organisation. syndicale syndicale de base. waaw kon mi ngi noonu leer na euh, Baba ngoom lan mooy problème mu o problème mu. CNO. si. Euh, en tant que travailleur nee nga ma yàgg naa ci. Mhm. secteur bi. waaw foo def fanweeri at ak lu topp même bu fekkee bokkoo ci direction bi am na yoo xam foog ñu laaj la ko. Mhm. lan mooy problème mu o ba mënuñu jox ndox normalement sénégalais yi. Ah, c'est une c'est une maanaam socialement ñëpp a koy laaj. dañu comprendre mais lan nga lan nga bëgg dégg ci jox ndox sénégalais yi normalement. maanaam dañu amatul ndox normalement. mais Sénégal euh, te ñu ngi fay facture tous les deux mois. Mhm. muy quartier surtout isi à Dakar surtout capitale bi moom musiba. gis nga fii sànq bi ma la woon kii Ziguinchor la nekk mi ngi alerter Sen'Eau. ne mhm. ñoom seen quartier bi ñu nekk pour ñu am ndox c'est c'est tout un problème depuis seen oo ñëw waaw un an mhm. ba léegi dañu gis ni yaa bu ñu comparer sax Euh, service bi ñu SDE doon jox sax ñu koy critiquer moo tane bi nga xamante ni actuellement moom la ñu Sen'Eau di jox quel la problème de Sen'Eau ça dépend de l'angle kii wax ban angle la nekk ma ne dama ne ñun ay travailleurs lañu ñu mhm. nous avons multiplié nos efforts par trois li doon jox nit yi yokk nañ ko trois fois li ñu doon jox si ndox nit ñi yokk nañ ko trois fois. mais ba léegi mu am ay poche foo xamante ne de résistance yoo xam ne ndox euh, du fa bare noonu waaye nag Sénégal laal mën a wax ne. amul kenn jëluma parti seen eau. damay wax waaye amul benn parti boo xamante ne dans la journée du am ndox waaye nag ndox mi dañ koy séddale. dans la journée man fi ma dëkk guddi ba guddi la am. waaw mais dans la c'est dans la n'est-ce mais di nga am ay. guddi ba guddi dem nañ ba habitué aussi déedéet heure yoo xamante ne parce que bu ñuy séddale ndox mi ndey euh, ndey kumba. Hmm. il faut que ñu jox ñi jox ñële jox ñële. pour ñu am maanaam ku am guddi doo am bëccëg. ku am bëccëg doo am guddi. waaw mais loolu dama ne la bu fekkee ne dañuy planifier. Hmm. mais bu ñu planifier loolu mooy planification pour que ñi li nu bokk. Hmm. te ñëpp mënuñu ko jotandoo. mais ñu jox ko nit ñi au fur et à mesure. moo tax ma laaj la quel est le problème. de Sen'Eau le problème bi mooy euh, euh, ndox moo amul. au niveau national. ndox mi doyul mi doyul loolu moo tax. Euh, le troisième euh, usine KMS 3 ñu di ko def ak tamit. Euh, KMS 3 boobu ba léegi. non KMS 3 ministre bi dégg nga ko bu bu yàggul. mu ne mars le 31 mars incha allah rappe mm. di ñu ko réceptionné après injecté si ndox gis nga mamel tamit ñu ngi ñu ngi koy liggéey pour jël ndoxu géej bi transporté ko jox nit ñi waaye mais nit ñi bu fekkee ne croissance population bi day bare. à mm-hmm. Dakar. Mm-hmm. mais toujours day andi ay pénurie loolu at ak les les habitants non mais Dakar tamit. Euh, am na ñuy am guddi ñii mhm. bëccëg. mais am ñoo xam ne du ñu am. waaw non ñoom dañuy toog plus d'une semaine. du ñu am ndox dañuy jógee quartier dem ba quartier. non non non nit ñi dañuy wax lu la ne xam nga des fois. am na ñoo ah, xam ne may déglu xam nañu li may. wax déedéet non une semaine laa wax. suñu ubbi woon antenne bi nit dugg ne la ñun bañ gëjee am ndox. kenn xamul man moom bu la neexee nga ubbi antenne bi man boog. Mm-hmm. fi ma nekk parce que ñun tamit ay euh, syndicaliste nu te nu sommes très proches de la population man li ma lay wax lu leer la parce que man tamit damay toog yenn saa ma toog presque une demi-journée du ma am ndox waaye nu mu terewul mais mm. dañuy dañuy jël dañuy euh, jël sunu ay matuwaay mais bu ndox amee nga jël sa matuwaay bu ndox amul tamit nga matuwaay ba nga jëloon nga utiliser ko am mais kon ngeen nit ñi factures yi. mais factures yi déedéet la factures yi. lan moo koy déterminer. bu dee ndox amul kay wala ndox mi doy la ngeen ñu doon jox joxatoo leen ñu ko ku am guddi doo am bëccëg ku am bëccëg doo am guddi mais bu factures yi ñëwee askan wi sentir ko. non facture assurée dinañ ko sentir parce que dama ne la facture bi. xam nga facture yi dafa triplé. déedéet xam nga lan moo nekk si diggante ñun ñun ak factures bi moom mooy déterminer yow li nga war a fay te compteur bi ay nit ñoom ne ñoo koy dem saytu ko di ko seet mu doon les releveurs de compteur. parfois ngeen teg compteur yoo ah. xam ni baaxul. non non non amul compteur bu baaxul tamit yow am nga euh, la possibilité de le faire. Euh, pour wax ne ne étalonnage ma contre bi baaxul ñu yóbbu ko étalonnage yow nga fekk bu ñu def étalonnage ñu xool ndax compteur bi baax na wala compteur bi bon. te lépp consommateur bi mooy fay mais euh, El Hadj Baba Ngom moo tax ndox cher. parce que normalement léegi euh, sénégalais yi dañu gis ni ndox dafa gën a chair au dafa gën a cher yaa yaa cinq ans wala dix ans ndox gënoon na yomb parfois sax nga gis ni facture yu ndox yi mooy gën a cher sax facture courant yi alors que c'était le contraire courant moo gënoon cher ndox lan mooy expliquer loolu. non ndox mi cherté de l'eau au Sénégal lan moo koy expliquer. non nit ñi dañuy wax rek ndox mi. yokkuwul mais Babacar ñun ay consommateurs lañ. waaw mais dama lay wax xaaral rek de dañ koo dund. déedéet man foofu laa jëm. waaw tey jii ndox mi cherul yokkuñu si benn prix waaye yow man ndey ndey kumba hmm. man boog baaba ngom yenn saa yi ma consommer triplement li ma waroon a consommer euh, ñaari fan hmm. parce que bu ndox mi ñëwee hmm. damay seet samay réserve loolu lépp c'est de la c'est de de l'eau cons déjà consommée nga denc ko bu ndox mi ñëwaatee loolu doo ko utiliser da ngay continuer di utiliser euh, euh, ndox mi boo defee loolu nag da ngay xaar pénurie bu ñëw xam nga loolu utiliser nga ko denc nga ko ba pare di continuer di utiliser sa compte waaye nag lii loolu ko gën a yombal mooy yow li nga jël ba consommer ko ba utiliser jël ko sa réserve bu ndox ñëwaatee utiliser loolu bu jeexee nga nga solaat réserve yi. non réserve yi kay doo ko laal. ah waaw moom la denc ko waaw réserve yi parce que. utiliser boo ubbee robinet bi ñëw réserve yi ngay utiliser. ñëwee nga duyaat réserve moo tax ma ne la utiliser nga ko ba pare. parce que ça c' est de l' ar c' est de mais loolu seen faute la yéen. mais du suñu faute parce que de pénurie ah, dañu matalagul. waaw loo xamante ne travail euh, kii mu ne les populations dañu ñëw am ndox en permanence en tout lieu. Hmm. loolu amagul bu hmm. amoon mais yaakaar naa sax du ñu jël. di andi charge seen o mais mais naka nga gisee Baba Ngom ci jamonoy Covid 19 bi feebar bi nga xamante ni raxasu la ñuy digle propreté ainsi de suite nit ki fu mu toll mi ngi war a raxasu. Mhm. Euh, di raxas set maanaam moom la ñu wax. Mhm. mais si jamono boobu ci la problème ndox am Sénégal est-ce que loolu c'est c'est logique maanaam ñit ñi war di raxasu fu ñu toll te ndox amul. waaw mais xam nga euh, Ndeye Comba mooy li ma la doon wax léegi. yéen ja yéen jàppoo leen ci xeexu Covid 19 bi. non xoolal dama ne la xeexu Covid 19 bi. waaw ñun ñoo si jëkk jàpp. noo ngeen si jàppee. xam nga lan moo lan moo si jàpp. moo tax ma ne ñun on a mis euh, euh, kii nu mu tëddati même bu ndox amul sax citerne ñu jox ko tra ñu jox ko les populations dama ne la même bu quartier bu. citerne da ngay gis quartier bu toog ay ay jour du am ndox. citerne bi dugg si quartier bi. ñëpp génn ku nekk ñaari bidon wala ñetti bidon dix litres ngay am citerne bi jeex dem yoonam. waaw non dañ. Euh, toute une famille nga jox ko benn bu trois bouteilles dix litres. non non dama ne la bu bu fekkee ne. dañuy dañuy joxe. mais je pense bien que loolu bu jeexee dañuy dañuy ñëw indiwaat. non ndax citerne yi. Mm-hmm. mais je pense bien que c'est gratuit et c'est donné à la population. mais loolu moo tax ma ne la yow si Covid bi nu nekk nii. Mm-hmm. Covid bi. jàppoo leen si de déedéet ñun jàpp nañ si bu baax askan wi nee na seen oo jàpp ci covid bi parce que ndox amul déedéet man defuma publicité man sa comité covid fa fa euh, fa laa bokk si au niveau de Sen'Eau waaw travailleurs yi ñoom fa yebal waaye dama ne la ñun waa Sen'Eau rek li ñu joxe si euh, si pour jàpp si dans un premier temps jàpp si produit yi pour joxe ko à l'ensemble du Sénégal et en plus di fexe ba nit ñi pénurie ndox di gën a ñàkk pour que ñu. nit ñi mën a raxasu tey la gën a kii. non mais waaye tamit non Baba Ngom nag. yow yow xanaa yow nga nekk yow. man ba xam nga fan laa yow ban quartier nga dëkk xam nga fan laa dëkk si Dakar. nit ñi amuñ ndox. maa ngi dëkk Zangbaaw du nit ñi amuñu ndox waaye nit ñi du ñoo am ndox en en en <laughs> amuñu ndox de. am ndox en un moment. <laughs> léegi yow nga ne comité xaw ma Covid 19 seen o nga bokk. bon c'est la bokk. waaw euh, dernière question bu ñu lay laaj question d'actualité la. dégg nga ñuy laaj si wax si affaire affaire vaccin yi ñoom seen est que waa Sen'Eau pare nañ pour ñu vacciner leen. man lay man. waaw dama ne man Baba Ngom laa wax parce que man maa wax waa Sen'Eau. moom nag loo wax mu ne man Baba Ngom. déedéet man. Euh, xam nga la man laay wax. parce que man Baba Ngom xanaa yow buur nga. déedéet man fa ma dëkk <laughs> fa ma dëkk. Mm. ñëpp xam nañ ne man du ma waxantu. waaw du ma caaxaan te du wax lu dul dëkk mm-hmm. parce que yaram ñu mën a xaw ma ko. Mm-hmm. waaye li ma lay wax ne man bu bu seen bu ñu doon euh, piqûre. waaw vaccin yi vaccin. man maa koy jëkk def. ndax lan parce que man dama jiite corporation te ñi nekk sama gannaaw bu fekkee ne luy luy rey la na ma rey ba pare soog leen a rey. ba Baba Ngom vaccin yi ak coow li ci am. déedéet man vaccin yi parce que tamit. Ah. ay nit a ko defar wóoluwuñ leen coow li bari na dégg nga li spécialiste yi di wax yow nga ne. bu vaccin yi ñëwee Baba Ngom yow yaay jiitu. man maay jiitu. waaw buñ la vacciné benn tra benn travailleur. waaw buñ ko la vacciné man maay jiitu. ah Diaw maay doon maa may doon kobaayu. waa CNO. man d'accord na doon seen kobaay. li jaaw da koy dagg teg ko. ne ko teg di ko teg si si si si générique bi. waaw bis bu fi vaccin yegsee. waaw. ñuy yegg si seen o ngeen ne du ngeen vacciné wu. man maay ñu la koy teg man maay doon kobaay bi. waa seen o parce que. kenn seen o. mu ña mu ñàkk fa bekkanam man ma ñàkk sama bakkan waa seen o mucc ma moo gën a. maanaam yow la ñuy njëkk a vacciner. waaw que directeur bi. waaw maanaam di nga volontaire. maanaam dinaa volontaire bu ñu laa vacciner benn bu waa seen o naa naa doon kobaay bi bu fekkee da de dee ñi si des ñëpp mucc. kon li ñuy wax nii dal na sa xel si affaire vaccin. non dal na sama xel parce que tamit nit ñi au niveau mondial xam nga euh, fi mu nekk mooy li ñuy wax rek nit ñi ku nekk yaa ngi seet fan ban kan moo ko wax wala kan moo ko def. te lii am solo bu am solo mooy. Mm-hmm. mais feebar la bu nekk fii mais feebar. gëm nga feebar bi yow. mais gëm naa ko gis naa ñu mu yóbbu am na samay xarit am na samay mbokk am na samay ay connaissance yoo xam ne à travers le monde ak yooyu yu mu yóbbu nun suñu PCA bi bi bi passé mhm. loolu la ñu wax ne moom moo ko yóbbu si lii si wax ji kon nag yaakaar naa feebar bi am na seen essai réel yow daal Baba Ngom ku fëgg seen o Baba nga taxaw na pour nekk kobaay bi mu nekk kobaay bi pour leer ñeen nañu mucc waaw kon ñu bàyyi la Baba Ngom nga tàggatoo auditeurs yi waaw Ndeye Comba kontaan naa. Mhm. ndax vraiment euh, je suis très très très content. pour bu ñëw fii. Mhm. ndax bu may ñëw damay kontaan damay yaakaar damay xam ne la may wax nit ñi diñu ko dégg te li may wax dina amal solo nit ñi. loolu moo tax ma di leen gërëm yéen waa réew mi FM di leen sant di leen ñaaneel yàlla li ngeen bëgg nag vraiment lii nit ñi xaar si yéen mooy ngeen am ngeen développer. amiin pour que am télévision yu rëy loo xam dina mën a capter tout le monde. ndax tamit fii. Mm-hmm. ay nit yu baax ñoo fi nekk. amiin di sant nag say euh, numéro ñi leen di déglu. Mm-hmm. waaw di sant population sénégalaise di sant ñëpp di ñaan yàlla nag. sa mbokk travailleur syndicaliste. syndicaliste yi ak ñëpp. di ñaan jiital. waaw ak ñi ma jiital. di mm. leen di leen gërëm di leen sant di leen wax ne man bokk seen ndaw dama leen di ñaanal yàlla. parce que liñ ma bëggee man mën naa am sax xawma ma lan la foo nekk ñu jiital la bàyyi seen bopp dama leen di gërëm di leen sant digg nag ñaan yàlla nag Covid bii yàlla na yàlla def si ñaanu mag ñi mu jóge fi ba fow loolu la ñu amiin mi ngi noonu kontaan nañ bu baax a baax ci disponibilité am ki lee di El Baba Ngom nekk euh, secrétaire euh, général bu syndicat unique des eaux du Sénégal ñu koy remercier euh, bu baax a baax di leen remercier yéen suñu auditeurs yi ànd ak ñun chaque samedi de 10 heures à 11 ci seen émission sociale toute la ville en parle di remercier Mamadou Diaw Diallo bi nekkoon ci cabine technique bi kon émission bi mën ngeen ko dégluwaat ci suñu sit internet www.rewmi Euh, point com wala ci suñu chaîne YouTube Rewmi officiel ñu leen di jaajëfal bu baax a baax ba samedi prochain incha allah ci beneen émission euh, beneen thème ak beneen invité.